gan gi euh, El Hadji Momar Samb secrétaire général RTAS bokk itam ci Haut Conseil des collectivités territoriales ñu ngi lay nuyu sëriñ bi Samb di am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. maa ngi lay fay soxna Thiam di am mbégte man it euh, ànd ci matinal bi. Mhm. di nuyu say auditeurs ak ñi leen di seetaan ñëpp. jërëjëf alors euh, euh, ñu euh, tënk waxtaan wi tey ci tolluwaay réew mi ci wàllu politique bi foog naa ne amul lenn lu ñu la ciy yëgal noo ko jàngatee ak naka nga yaakaar ne noonu la ñu war a def ba saafara ka ah, réew mi day tolluwaayam du bett ñi xam ne dinañu xeltu di gëstu di seet di topp yëngutu ci réew mi ngir mu baax ndax euh, li fi xew bërk démb xewoon na fi at yee passé mën naa wax ci bi ci weer wi xam ne mooy mars waaw euh, mu mel ni am na ñoo xam ne dañuy jóg ngir euh, salfaañe li xam ne mooy sunu mbaax sarti réew mi ak lii xam ne moo ñuy def république mooy réew bu ñëpp mbokk ñëpp war ci am yem sañ-sañ euh, ak ay wareef euh, li ci métti nag mooy euh, ñi mu dal seen kaw ñoo xam ne ñu ngi war nañ jaale sax ñoo xam ne ñooy mbokki ki fi jóge duudu lañ koy wax mu mm. ñu ngi koy jaale ay mbokkam et di wax ne rek lu waroon mën a ñàkk la bu fekkee ne toppoon nañu li xam ne mooy sarti réew mi mooy mbaaxu réew mi te du loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp dañu ko jox dénk mm-hmm. ñun ñi xam ne ñoo nekk ci jamono ji ndax jamono ji wees am na lu mu ñu bàyyil ñun it war nañu liggéey pour bàyyil euh, jamono bu baax ak mbaax ñi xam ne ñooy ñëw loolu euh, li tax koy wax mooy xam nga bu fekkee ne yow dañ da nga tuumaal nit tuumaaluñu la sax yow yow yaa tuumaal nit. Hmm. nit kooku euh, ne loolu man dama bëgg a setal sama der. Euh, fu ñu mën a dem rek mooy yoon yoon rek moo leen mën a atte ci li ñuy wax république mooy réew boo xam ne ñëpp ko bokk ñëpp yem sañ-sañ ñëpp tënku ci yoon waaw bu ko defee nag yow li nga war a def rek li sa ware warugar mooy nga dem seetal deru kii xam ne moom nga tuumaaloon wala nga indi firnde buy wane ne sa tuuma bi nga ko teg ci kanamu àdduna bi yëpp kanamu njabootam am na lii moo koy firndeel bu boobaa kii àtte yow nga taxaw ak say kële taxaw ay avocat am kii àtte kenn rek la àttekat bi bu àttee ñëpp xam euh, li ñu war a doxalee loolu nag bu fekkee ne yow da ne du fi amee danga nga nangu woon ko de. Hmm. benn wax nga ko waxati ko waxati ko ne yow amee nga lépp luy dossier kayit buy firndeel ne kii may tuumaal tuuma ji ma ko teg lu am la te mbir mi lu yomb la te njaal benn ga nga ne ñëpp toog leen seen kër soxlu ngeen dem ndax li soxlawul dara rek moo ca topp waaye boo jógee nag woo nit ñi nag léegi. damay reyante xam nga loo waxuloo ñun ñi sax ne nañ dem rek ndànk yooyu ci jàmm salaam da nga ne jóg leen ñu reyante reyante léegi man euh, kii ma jàkkaarlool politiquement daf may rey wala ma rey ko te moom ñu dénk réew mi maanaam yow jaayantewloo kooku réew mi ngay jaayanteel. Mm-hmm. réew mi ngay xupp. Mm-hmm. waaw alors euh, ñooña itam euh, mel ni dawuñu ci dara ndax bu ñële ne dañuy manifester ñoom ñu ne dañuy def contre manifestation te wolof ne borom caq du xeex ak borom baati neen est-ce que ñële amuñu responsabilité ci préserver benn stabilité parce que ñoom ñooy réew mi à la fin aussi ñoom ñooy rendre compte. man gisuma fenn xëy na lu ma rëcc la. wala hmm. lu ma gisul euh, xeex diggante ñii ne ci nguur gi. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye Pastef. yenn saa ñu joxoñ ay nervi yu ñu wàccee ci mbedd mi. man dama ne gisuma fenn loolu. Mm. xëy na yow gis nga ko. Mm. waaw li ma ci mën a wax rek mooy li am te yow balaa nga koo jëfee danga ko wax woo ci àdduna bi yépp ne mm. man dam bëgg a reyante man liñ ma laaj pour ma joxe ko ngir firnde am naa ko waaye duma ca dem. dama ne yow koy jaayanteel koy xupp xam nga xuppuloo partie bi néew pouvoir état bi ngay xupp mm. état bi askan bi boo ko teg ci loxo ay nit dénkaane rek la mm. dénkaane boobu nag dañ leen wax ne sàmm leen suñu jàmm sàmm leen suñuy diggante sàmm leen suñuy sañ-sañ ñëpp dox ci jàmm sàmm leen suñu nekkin yow nga jóg ne man kooku laay xeexal kon yow askan bi ngay xeexal hmm. ñoom ñëw wàcc seeni nit ci mbedd mi taal ay kaar ay bus taal ay kër taal ay liggéeyukaay taal ay bërëb yu jaay loolu moo hmm. man xaw ma ñu ni fu ñu ne walla yéen seen bët xëy na dafa da am loo di gis loo xam ne ñun mënuñu koo gis hmm. wala seeni nopp di dégg loo xam ne ñun mënuñu koo dégg waaye réew mi fu mu toll ah, li xewoon deux mille mars deux mille vingt et benn nit appartient ñoo jóg ne ñi ñi génn leen ndaw yi génn leen ngir jox seen bakkan hmm. ngir ma bañ a wuyu ji waa loolu ban réew lañu ñu ne ban réew nga mën a nangu ci àdduna bi laa wax de waxuma leneen ci hmm. àdduna bi hmm. nga mën a nangu nit jóg ne man damay jaamaarloo état bi li ma yoon teg duma ko nangu te yoon sax atteegu la waaye yow yaa tuumaal yow yaa dem ci bërëb boo xamee ne am na loo fa jëflante ak nit mu am lu ko naqari bu mu dem ci yoon parce que àdduna bi république réew mi ni mu tëddee lool la mooy ñi new doole hmm. bu ñu amee ku leen ku ëpp leen ëpp doole ku leen ko teg am ñu fenn fu ñuy dem lu dul ci yoon hmm. waaye yéen ay nit nit lañu wala duñu ay nit ci république la ñu ne wala newuñu ci république te république nag mooy lan mooy danga am sañ-sañ mais danga am ay wareef waaw dafa am lu la war loo hmm. xam ne moomuloo ko askan wi réew mi moo ko moom moo la ko teg boo na ngay dund ci république rek da ngay nangu loolu am ngay sañ-sañ waaye danga nga am ay wareef Mhm. alors te sa sañ-sañ. Mhm. dafa am fu ñu ko yemale. Mhm. mooy sa sañ-sañ walu yi warul sañ-sañu keneen. wax nga laa di jéggi sañ-sañu ñëpp ci réew mi. waaw ñoom ñoom nag yenn saa ñu jàpp ne seen àq ak seen yelleef wala seeni i sañ-sañ dañ leen koy xañ bokk na ci sañ-sañu mën a manifester euh, sañ-sañu itam xëy na pour Ousmane Sonko jël yoon bi mu bëgg a jaar jaar fa pour yegg tribunal loola ñaaree ñu leen koy xañ manifestation yi ñuy tere bari na Ousmane Sonko itam euh, am jafe-jafe pour aw fi mu bëgg aw euh, pour dem tribunal rax ci dolli ñuy jàpp ñu bari ci seen ay ñooñ loola jàppoo ne mën naa layal la ñuy def yow booy dox ci tali bi wala nga yor sa oto bu la alkaati ne la fii doo fi jaar nooy def hmm. alkaati yooyu la ñu dénk suñu bopp dënk leen suñu jàmm suñu demax dikk ci ak sunu nafsu ñoom la ñu dénk suñu bopp yor sunu karaange ñu jox leen doole ji xam ne dañ ko war a teg ci képp koo xame ne war nañ la yoon nga ne doo jaar sa yoon woowu sañ-sañu Ousmane Sonko mënul ëpp sañ-sañu askan wi ci seen jàmm ak seen dal ak seen salaam ba xale yi mën a dem jàngi ci xel mu dal seen wéyjur mu leen gunge ci xel mu dal. Hmm. loolu man xaw ma xanaa ñi ñi dootu amatuñu xel xëy na. Hmm. kon yow daal gisoo jafe-jafe ci yooyu yëpp. ak itam la ñu koy teree génn te kër góor gi sax ndax nañu koy. dama la wax ne ma wax la leneen hmm. leneen ma teg ci leneen. képp koo xam ne danga nga di fi askan wi. di fi réew mi. ne man dinaa taal dinaa rey wala ñu rey ma damay yëkki fitna. Hmm. kooku dañ ko war a téye. Hmm. man ba léegi mënuma comprendre mënuma hmm. nangu mënuma comprendre que woote yooyu muy woote ñu koy bàyyi muy woote di woote waat loolu man mënuma ko nangu kon jàpp nga ne waroon nañ ko teg loxo bu yàgg mais bu yàgg ku jóg di woote fitna ci réew mi ne man dama lay rey waaw wala gatsa gatsa yow ñi xam ne euh, baat boobu sax dafa ñaaw a dégg. Hmm. yéen ñi xam ne yéenay ndaw. Hmm. man dañ ma o ci yoon. Hmm. man maa tuumaal ñu oo ma ci yoon. ma war a indi firnde ma wax ñëpp àdduna bi ne yor na firnde yi xam ne mooy waree ne kii ma tuumaal def na tuuma boobu loolu nga nangu ko yëkk ci réew ñu lay bàyyi ngay def loolu nga koy dérouler mais loolu xanaa dañu dof wala dañu néew suñu xel. dafa dafa dafa dafa dem ku nangu xel kuy xel kuy nit te nite bu nit jógee ne man réew mi li mu nekk jàmm ji mu nekk dama koy fasal hmm. man fu ma neex laay dem lu ma neex laay wax ku ma neex laay xub yemul ci neex ak yéene mais andi ay nit ñuy dal di taal bay rey mais loolu loolu nan nga ko mën a nangoo yow nan nga mën a nangoo ne kii dañ ko war a bàyyi mu am sañ-sañ yi ñeneen am kooku sañ-sañam dafa dàqu. Hmm. sañ dafa dàqu ndax sañ-sañu beneen nit sax daf ko dàq waaye sañ-sañu askan wépp nga lëmbee am réew lépp ndax kan gis nañ fi ñuy manifester. Hmm. ñu accorder manifestation ñu def seeni meeting même réew mi sax bés yooyu am na ay gox yu bari dañu def seeni meeting seeni marche. Hmm. mais yow nga ne doo dégg ndigal li yow yaay toog xeexal état état bi nu mu war a defar yow état bi newul fi benn nit nekkul fi benn parti parce que ñi fi ne dañ leen dénk te dañuy dem. Mm-hmm. dañuy dem mm-hmm. ñeneen dañuy ñëw. Mm-hmm. waaye li fi ne moomeelu ñëpp la. moomeelu ñëpp nag bu ko bëggee kenn bëggee yàq ñëpp ñoo war a jóg taxaw ne du fi amee. waaw am na ñu taxaw nag ñoo war a jóg taxaw ne du fi amee. alors am na ñeneen ñu taxaw wax ne xëy na jàmm mën naa dellusiwaat ba tey daal yëf yi mënees na kaa dabu société civile bi bokk na ci ñu ngi wootee dialogue gauche bi itam dégg nañu jamono yële ñu wax ni daal ñoom du ñu toog itam seetaan mbir mi ndax fi réew mi jëm kenn xamu ko yaakaar nañu ne danañu am taxawaay wu ñu am ñu njortu ne aussi ci dialogue lañu ñu jëm ndax yooya yoon jàpp nga ne bu nu ko awee danañu yegg ci jàmm. mënuñu xaw ma ban gauche ngay wax de. waaye mm-hmm. ci gauche bi laa bokk barke waaye dañu ñaawlu jëf yi xam ne moo fi am hmm. mënuñu ne eh, fitna dañ koy taal ci mi réew duñu nangu yoon duñu nangu sart hmm. duñu nangu kilifteef ñëpp la ñuy boole boxoñ dëggaate yow nga ne dangay waxtaan koy waxtaanal fitna mënul waxtaan ak jàmm jàmm ci la lépp xaj ci jàmm la mën a waxtaan hmm. waaye koo xam ne wootewul waxtaan li mu woote mooy fitna rayante la woote yàq la woote te dama wax ne boo ko ma ndax Fatou yaa ngi maa ngi lay dégg bu baax du rek du rek woote. Mm-hmm. daf ko jëfe mm-hmm. fukki bakkan yu ndaw ak ñeent wadd ca. Mm-hmm. daf ko jëfe ba ay magasin ñu taal leen. daf ko jëfe ba mu dal ci kaw ay journaliste ba taal seeni oto. daf ko jëfe ba taal ay Auchan ak ay Total yoo xam ne moomeelu askan wi liy gën jaa bari. Mhm. dafa jëfe ba tere ñi ñu dem di doxi seen soxla ni xam ne moom lañ ko war a doxe mhm. ma ne loolu kooku nooy koy waxtaan moom a looy waxtaan ak moom. kon daal dialogue mënul am lan mooy waxtaan. Mhm. kii xam ne kañ xam a man xaw ma si ban réew laa ki xam ne dafa jëf jëfam réew mi da ko war li xam ne moo war a tegu ci moom mooy na dellu ci jàmm na taxaw taxawaayu nit parce que yenn sax du am nite. Hmm. du du nite. parce que koo xam ne boppam rek même gis nañ ko mu yor doomam naa doomam day jàngi sax bés boobu seen école dañ ko tëj mu mel ni euh, euh, euh, comédien buy joué benn film voilà mais ku mel noonu lax doomam lax njabootam. kooku waroo ko bàyyi mu génn bu fekkee ne dafa woote fitna ci réew. Hmm. ku wootewul ku woote jàmm nag kooku mën nga toog waxtaanam mais koo xam ne wootewul jàmm nanguwul yoon yi xam ne ci lañuy ñu war a toog waxtaan nanguwul sart yi xam ne moo leen boole fas leen ci am réew ngir ngeen jàmmoo kooku koy waxtaan moom boo dofee nag mu toj sa bokk hmm. bu ñu dofee bu ñu defee ñun. Hmm. waa Sénégal yëpp ci réew mi ñu toj réew mi. Hmm. bu boobaa suñu ca suñu càggante la suñu ñàkk responsabilité la. alors lan a war a doon dëgg-dëgg taxawaayu gauche bi gannaaw ci nga bokk. taxawaayu bi mooy lu ñu wax mooy. Hmm. gauche bi dafa woo. ni ma koy waxee nii gauche bi dafa war a woo askan wi. muy patronat bi muy liggéeykat yi. muy képp koo xam ne yaa ci réew mi te jàmm soxol la. ñu booloo rikk dëkk ak langue goo xam ne. Hmm. ñu booloo goo xam ne. ñu ni day noo xamee ne seenam seen taxawaay ah li ñu ut ci réew mi dina ëpp doole waabe bi ñu bi xam ne moom la ñu diwoon. pour ñu jàkkaarloo ak ñële. Ousmane Sonko. Hmm. du jàkkaarloo xeex. Hmm. jàkkaarloo xalaat ba yooyu xalaat ñu mën ko rey ci réew mi. jàkkaarloo ba nit ñi mën a fagu. ba dooleel ñi xam ne ñoom ñooy aar yor suñu kaaraange. Hmm. di ñu aar di ñu jàmmal di ñu may afiya ba suñuy doom mën a dem école ba ñun ñu mën a dem suñu liggéeyukaay. Hmm. ñu bañ a taal suñuy société bañ a taal suñuy service bañ a hmm. taal suñu commerce. loolu mooy taxawaayu gauche mooy nañu fexe ba li ëpp ci réew mi am xalaat moo xam ci këru diine yi la ñu parce que même kilifa diine yi xotti nañ seen worma. respecté tuñ leen dañ leen di saaga. Hmm. ci réseau yi fu ne dañuy dal seen kaw ndax am na fële xam nga booru Kolda la foo xam ne hmm. dal nañ fa ci benn kuréel diine gis nga la ñu def Touba barke dem hmm. dañuy def Mbàkke mais loolu naka la ko ñi mën a gisee ba noppi di ko noppi benn ñaar ne nañu waxtaan ak ñoom <laughs> mais loolu mënuma ko comprendre. bon et aujourd'hui man pour man état bi. ñi yor suñu kaaraange yor suñu jàmmi réew. ñuy hmm. jàmmal waroon nañu fexe ba loolu sax dootul jibati ci réew mi dama ne dootul jibe wax yooyu sax laa hmm. wax ba jëf. waaw wax yooyu. Hmm. di woote fitna di woote pour rey nit ñi di woo ñu di wàcc si mbedd mi pour reyante. mais dama ne ñooñu. ñooñu waruñ leen bàyyi ñuy wax sax. alors société civile bi jàpp na ne xëy na tension bi doon na wàcc itam buñ ñu gindee ci mbiram ñetteelu màndaa jàpp nañu ne bokk na ci jafe-jafe yi tey ji ban jafe-jafe moo am ban troisième wala quatrième cinquième mandat moo am ci yow nga tuumaal nit mu ne la yow tuuma bi nga teg amul nga ne ko am na maa ngi këyit yi yu koy firndeel mu dem ci yoon yow nga kayit këyit yëpp yor nga ko soxlawul sax laam-laamee nañ dem rek nga dem uyu delluwaat nit ñu toog leen seen kër léegi nga ne dematoo loolu ay fan la troisième quatrième cinquième mandat wala premier ne fan yow nga yëg guddi bàyyi say soxna dem ci béréb boo xam ne ne dangay dàmp ci couvre-feu te di kilifa ci réew mi nga dem foofa amul lu fa xew ba kan ka kan dem ci yoon ne daf ko doon sàkku waaw ani troisième mandat ani quatrième mandat ani cinquième mandat foofu xam nga jaxase xelu nit ñi. Hmm. ak jaxase lu bokkul. man dama ko gis ci réew mi mais dafa dafay tooy sama xol ndax nit kuy xalaat am na nu mu war a doxalee noo xam ne bu bëggee jàmm bu bëggee lu leer bu bëggee dëgg am na sax nu muy xela xalaate hmm. nu muy waxee noo xam ne ñëpp dañ ànd lii yenu na maanaam lii mën nañ koo dégg hmm. bis bu problème troisième mandat taxawee ci nii ci nene ñi ñun nañ ci taaw ba léegi sax ki xam ne moom lañ koy jiñ waxagul mhm. te ba léegi saturé mi ak euh, dogal yi fu ñu toll yegg gu sax yegg gu sax ci loolu wala ci mën a am ma ne yow nga tuumaan ma yow faatu mm. ma dem ci yoon mm. ani troisième mandat foofu ah gars yi yenn saa yi manifestation yi ñuy def bañ leen koy tere muy jur fitna dañ ciy laxas troisième mandat ndax dañ ne duñ duñ duñ bàyyi président Macky Sall mu yàgg ca man man man ñi ñi am xel laay waxal hmm. yow laay waxal sax hmm. yow yaa laaj may waxal sa auditeurs maa ngi lay déglu ñi may waxal mooy ñu am xel hmm. fan la man mandat ci loolu may wax nii te loolu moo sooke li mu wax fan la ci troisième mandat ne yow nga dem guddi yow xanaa jigéen sax yow yéen jigéen ñi sax war ngeen am lu tooy seen xel yéen seen jëkkër jog guddi dem béréb boo xam ne ne dañu fay dàmp am fa comme am tel jigéen ci ndaw ñaar suukat bu ko amee xëy na sala yam nga war a doon sax mën a doon baayam nga jóge fa ne dem nga fa demati fa ba nga ba nga ko weddee ca njaal benn waaw fa ne ani troisième mandat ci loolu wala jigéen boobu ndaw loolu amul sañ-sañ ci réew mi sañ-sañ yi moom am pour dem fu ko neex mu am sañ-sañ dem ci yoon ne man dañ ma tooñ te dama bëgg loolu mu teggeeku ma ani man mandat mhm. yow nga tuumaal ma ma ba ne tuumaal tuuma boobu amul teggi ko ñu woo la fañ la war a ne la indil kayit yi nga ne non non damay xaar procès dama ko fàttee dama def lii dama juum ci lii mais loolu yëpp boo dee yow waxuma sax kilifa de. Hmm. ngay nit rek ku nit ku responsable parce que yenn manque de sax la. Hmm. ndax yow boo dee responsable di kilifa war nga am loo jombal sa bopp benn. Hmm. am na foo xam ne doo fa dem am na loo xam ne doo ko nangu am na wax yoo xam ne doo ko sañ a yëkkati. teg ko moroomu nit ni yow. jërëjëf jërëjëf. loolu nag bu bu roccee ko ci nit. nit des fa te foofu lañu toll. Hmm. te dañuy bëgg nag ñun ñi ànd ci loolu ñu ànd ñun ñëpp Sénégal ñu ànd ci rocc ci nit li itteel nit foofu lañ toll. Hmm. nañ dugg ci mbiru bàyyi ma. Hmm. Sénégal waru ko nangu. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf El Hadji Momar Samba ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay secrétaire général bu RTAS rassemblement euh, des travailleurs africains Sénégal nekk itam membre ci Haut Conseil des collectivités territoriales HCT ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di delloo ngërëm li di leen jaajëfal. jërëjëf di leen jaajëfal. jërëjëf di jërëjëf.